mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax comme ni ñu ko baaxoo di defee di jël nuyoo bi ak ziar bi di ko jiital ci sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ci mànd nag di nuyu ñëpp di ziar ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye nag dañuy jël nuyoo bi ak ziar bi dal di koy jiital ci sunu kilifa gi nga xam ne tey moo fi toggee toggaayu sëriñ Touba di sëriñ Gass Amina. Serigne Gallass Amina ñu ngi lay nuyu di la ziar ci nuyoo yi gën a màgg nuyoo yi gën a tedd ci di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di nuyoo mboolem koo xam ne da di élève nekk ci école privée Fallou Gallass bu Mbacké jaar ci sama kàddu yeggee ci sa jëmm ju màgg ji sa jëmm ju tedd ji di nuyoo nuyoo boo xam ne buñ sañoon des koy nuyoo rek ca ni gën a rafetee def ci suñu kémt lay kattan waaye lottu nañ ci di la bu baax ci Balla Aïssa ji waaye di la ziar ci weeru mag wi ñu nekk di weeru seewu ramadan mubarak di la ci ñaanal bu baax li nga bëgg ci liggéey Serigne Touba yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defalee ni nga ko bëggee ànd ko mbokki taalibe yi euh, teewaay bi nag lenn la muy bés boo xam ne des ko jublu muy cant école privée Fallou Galass de Mbacké c'est pas la première fois ñu koy def fii ci école bi yaakaar naa kenn du la ci wax lu bari ndax xam nga ci loo xam ne amaana am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci école bi xamuñ ko ci sa diggante ak école privée Fallou Galass bu Mbacké dafa yàgg loolu loolee nag bés ba moo dellu siwaat bés boobee ñu jëm nga am ci cër boo xam ne da di cër bu particulier cër bu spécial boo xam ne buñ la ko joxee am nga ko ci buñ la ko joxul am nga ko ci alhamdulilah bañ ko xamee def suñu kemt lay kàttan ñëw ci yow xamale ne la am nga cër boo xam ne ci école bi sa cër la boo xam ne yow rek yaa ko am bés bi nag kon rawatina bésub sëñ Fallu ñu ne gala sëñ Galas Amina yaakaar naa loolu amul luñ ci wax lu yaatu kon cër baa ji noonu sa cër la jox nañ la ko ci joxin wa gën a rafete ci joxin wa gën a màgge ci joxin wa gën a teddee di loo xam ne yaa ko moom mboolem koo xam ne da nekk ci école bi maasoo ci loolu daal la koy jox kon loolu amul luñ ci nattable li ci topp nag mooy lii ab daayira la boo xam ne dañ ko daan def alxamis bi jot mu daayira boo xam ne dañoo fas yéene mu sax ci école bi kuréel bii doon def prestation bi di kuréel gu mag ci école bi nga xam ne dañuy def répétition ak lépp ñoom sasoo lu jëm ci wàllum jàngum xaside gi tey nag ci weeru koor gi dañoo jàpp ne rafet na ñu wut bés boo xam ne dañuy wàcce daayira bi ñu ndax 14h lañ ko daan def ba 16 mu jeex tey ñu tàmbali ko 16 jëm ci ndogu fas yéene def ay ndogu yu macha allah daal koy ànd ak mbokki taalibe yi léegi nag li waral teewaay bii mooy bis bi nga xam ne dañ ko jublu muy bës bu màgg. mboolem élèves yi taxaw temm ngir liggéey Serigne Touba ci bis boobu ngir liggéey Serigne Fallou ci bis boobu jaadu na nag bala ñoo dem fenn gis la bañ laa romb mu ñëw ci yow waxtaan ak yow fexe def suñ képp la kàttan nga ñëw ci élèves yi jàkkaarloo ñoom waxtaan ak ñoom soññi leen ci liggéey bi kon sëñ bi yaakaar naa kàddu gi du mën a bari sëñ Ousmane mi ngi fii di jawriñ ji ñoom sëñ Bamba ñu ngi fi administration bi mu ngi fi élèves yi ñu ngi fi laataa ñu ciy sori dañ lay jox rek kàddu gi. ci soññee gi incha allahu rabbi ñu wéyal liggéey bi bu soob yàlla. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne Touba Xaadim Rasul di wax jër jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf sëriñ Touba ah tey nag euh, dañoo am mbégte bu baax teew gii ñu teewaat fii di école Fallou Gallas. te ku ne fàllu galas rek ne sëñ fàllu moo tax am ñu mbëgg baax a baax ñu teewaat fii ndax lii du tey du démb li nga wax léegi rek dafa dafa dafa yàgg lool ànd bi ba ñuy door la woon te boobu sax nekkuloon fii fële la woon te boobu ba tey yéen tamit yàqu leen ci dara lépp lu ngeen dugg lu ne da ngeen ma ko wax lépp lu ngeen jëf lu dangeen ngeen ñëw ne ma nàngam ñi naam am naa fi ay kilifa waaye yëpp xool leen ko. da ngeen di romb loolu lépp ñëw ba ci man ni ndorteel ci yow la woon kon nañ ko eggale ci yow loolu nag maa ngi ciy am mbégte bu baax ak cant bu baax a baax tamit di ñaan suñu borom yaakaar yi nga xamante ni am ngeen ko ci suñu jëmm yu tedd yu xeebu yi yàlla nañ suñu borom defal leen ko seen jot si barkeb Seydina Mohamed barkeb weeru koor gi ñu nekk di wax ne na xel yi gën a dal rek ndax liggéeyub sëñ Fallou moom man la ma daan waxee keroog sa kër kër laa waxaat rek. amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te sëñ Fallou moom bërigo ci mbartal rek boo laalee day dem boo laalu day dem bay boo ñu jëm sa taq rek ànd ca mooy liggéey sëñ Fallou bii mu waat sëñ Fallou tamit diwlin la rek ku ne nag sóoboo ngay tooyee kon nag bu ñuy sóobu nañ dugal suñ jëmm yépp ci moom rek ba lépp tooy ndax ñeme na bor lool waaye ak mën a fay te loolu sax firnde ji daane ci mooy résultat école bi li muy am rek te dara wóorul ko dul seen passeef ak bëgg sëñ fàllu gi ngeen bëgg sëñ fàllu pare nangoo jàng teg ci mu leen di may résultat yi ngeen def yépp kon ñu ngi ñaan suñu boroom lépp loo xamante ni yootu ngeen ko fi ak lu mu mën a nekk yàlla nañ si yàlla defal ndam lu koy seen jot ecole bi yàlla na ko sëñ fàllu gën di taxaw ba résultat yi ñu ciy séentu rek ñu am yu koy suñ jot ci loolu yàlla nañu yàlla gën a ubbil xel yi ba lépp luñ gis man ko lépp luñ xool tamit xam ko yàlla mën na ko ñu ngi ko ñaan si barke Sëñ Fàllu mu defal ñu ko ni ñu ko bëggee di leen gën a soññ nag di sonn suñu bopp sax laay jiital di gën a ñu gën a farluwaat bu baax rek ci wàllum njàng meek nu ñuy dundeek parents yi gën leen a jàpp gën leen a fonk gën a am kilifa ndax xam ne loolu rek moo ñuy jariñ leneen du loolu dañuy nax suñ bopp rek te wax dëgg yàlla ña ci bu baax a baax kon yàlla na yàlla xeeb dolli di wax ne sëñ bii mu am na mbégte bu baax a baax a baax ci cër bi ngeen ko jox ci école bi fii moom li may wax rek dama ne fii sama école la amoo fi sens interdit amoo fi heure bu ma fi ñëw heure bu ma fi ñëw tamit ndax dama xam ne sama yëf la moo tax euh, di santaat bu baax nag euh, ñoom suñ xaadim ñii mën naa ne ñu njëkkewul liggéey bi ci lañ bokk waaye ñoom ti bàyyiwul dara ba tey chaque jour ñu ngi si gëstu ñun tamit damay nekk Dakar sax walaay te ay étudiants sax ñu am ay cant gi cant gi cant gi nga xam kon loolu couleur rek moo moo lal ndax doon fi gis naa ñoo xam ne jàng si école mais bu ñu fa xëyee pare pare nañ fa fii nag maa ne li ñuy wax yi wax sëñ Fallou jee tax sëñ Fallou jee tax gars yi <laughs> mënuñ fekki daal loolu moo am sax moo am. <laughs> mais di am ak cant bu baax rek di mbég tamit bu baax a baax a baax seen taxawaay seen jëmm yu di gën a soññaat ci bis bi di wax ne nañ gën a takkaat laxasaay xam ne ki ñu liggéeyal mooy kan sëñ Fallou te suñ bopp sax lañuy liggéeyal ndax dañoo bëgg fay te bu fayee danañ kontaan di ñaan suñu bis bis bi di jum si nag yàlla si lu ko suñ jot am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax weeru koor gi ñu ko ubbee nii weeru koor moom ku ne xam na ay ngëneel yu neen la ngëneel yu nekk si weeru koor yëpp yàlla na ko suñu borom def sa bis ba te na baax a baax danañ ko fekkee incha allah bu neexee suñu borom def ci lu koy suñ jor ñan daal suñ fàllu cant kuñ ci mas a def rek na si gii dàqagul moom xam naa sax loolooy am ndax euh, suñ fàllu moom <laughs> lépp loo wax defal lu ne bu dëwënee da ngay jàpp ne <laughs> gii di ñëwaat sax mooy dàq moom xam naa waaye nag. na yi neex na daa yii daal na gàccaal yëpp yaweesu rek ak sëñ lu yàlla man na ko yàlla yàlla ma ñu doolay poos ba lépp luñ bëbët si bis bi ñu def ko ñu ko bëggee lépp luñ si xaar muy lu yàlla defal ñu ci lu koy suñ jort di ñaan suñu borom tamit examen yi ñu jub si yàlla ñuy def examen ñëpp suñu borom may leen di koy seen jort yàlla na fi defis yu bëri mention yi yàlla na fi bëri tamit barke sëñ Fallou Sénégal gépp nag yàlla na fi école bi raw baax Sëñ Fallu yàlla mën na ko jërëjëf suñu xol sedd na baax xam naa daal kon ñu ñaan suñu borom rek ñu dugg ceeg bisimilah rahmaan rahim gën ceeg alhamdulilahi rabil alamin di wax ne kontaan nañ bu baax a baax di nuyu sëñ Mor An bu baax a baax ndax moom ku ne xam ne jàmbaar sëñ Fallu la amul lu dul sëñ Fallu tamit lépp lu mu yor sëñ Fallu ko moom moo tax sëñ Fallu fay école yi tey jërëjëf yàlla na yàlla taxu bu baax a baax a baax di wax ne sëñ bi mi ngi si ginnaaw mi ngi si kanam lépp loo xam ne nii daal ni ñu ci nekk rek naa ko yëg incha allah lépp lu ñu ci man loolu dañu ko ci def lépp lu ñu ci xalaat dañ leen ko wax ñu sopportee xalaat rek di ñaan yàlla gën a dëgëral ànd bi ba saytaane bañ see man dara parce siñ Sëñ Fallu sant nañ bu baax baax di ñaan suñu borom nag bu dëwënati ñu toogaat fii rek kenn bañ a manqué parce que yàlla mën na ko jërëjëf jëw